sëñ Aziz sama may sunu mbër baare sang baay Madu Lamin Madu Lamin baare sëñ Aziz sama may sunu mbër baare sang baay Madu Lamin Madu Lamin sëñ yi nu ngi nuyu baax sëñ Aziz waaw xam nga daam loo xam bu ko sëñ Alaaji waxee te séedewuma ko kàdduy ngànt lay doon te tey jii dañuy ñaanal sëñ naar ca Monza waaye dama ni leen sëñ Aziz kat dana am wëllëre goo xam ni lu man di xewit danaa dem ba Brescia teew fa ndax moo ma njug moo njëkk a yóbbu Paris bis boobu bi sëñ Alaaji di wax xam nga lu amul seede baaxut te bis ba mën mii dama caa dem ren ay tur tànk yoo xam ni muy jaawartulaa bu pare ñëpp xam nañ ko yàlla xam na ne ay étudiants lañ woon yoo xam ni mën naa ni ca ba ñuy door gëmuñu woon sax ni war nañoo mën a bokk ci ay daayra bay taxawal lañu taxawal ak lañu réaliser ca pari sëñ Birane Seck moo ma wax këram ni ma sëñ Aziz fii la ñu ne man ak sëñ Xaadim Mbóoj ñett lañ taalibeeb sëñ Issa Dieng ba sëñ ba Cissé nee na sëñ Aziz ni leen yëf yi dana dem ba ëpp leen ni loxo wallahi ren ba ma ca demee moo ëpp li teew fii te xaaj ba duñ ay taalibeem télé yañ fay def ñoo ko moomal seen bopp lañuy filme filmer ñoo ko moomal seen bopp dem na ba ñoom sëñ Birane ñoo ñu yoroon liggéey bi ndaw yi étudiants yooyu nekk Paris jël nañ liggéey bi ci seeni loxo ba ñoom defatuñ ca dara daara ji muy wax léegi moo kër sëñ Abdou Aziz mii ñoo jàkkaarloo jëndee na ko lu mat fanweeri million ñaar xawma fanweeri million benn lañ fa waxoon la ca gën a yéeme mooy ña jiite daayira ba ca jaawartulaa ca Paris seeni doom nga xam ni dégguñu sax olof bu baax ñoo jiitu ca daara joojee nekk Touba nga xam ni taawub Cheikh Abdoul Aziz mii moo leen di jàngal kon bis bii nga xam ni moom lay def fii ci Brescia ñëpp di ci teew noonu la koy defee Paris ay étudiants yoo xam ne dañoo jàng ba dañ ci griir di ca teew gëm sëriñ bi lool ndax xam na ni njariñu àdduna ak alaaxira la noonu it la koy defee Angleterre bisub sëñ du Khadir Mbacke maamam Angleterre la koy def te ku ne xam na Angleterre yëf yi mel na ne lu fa tumuranke waaye jataay ba mu fa def ku ko dugg ci internet bi da nga xam ne la maamam ne woon rek ca la ne li sëriñ bi waxoon ne nag batan tu zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal Mustafa tajtahidu waaye kuy sa maam Cheikh du Khadir sëñ Abdou Khadir mi nga xam ni bis bi mu ganee jamono la sëriñ bi ni sëñ tubaa ci boppam ni maam cerno ni nga koy tuddee ba bi ngay dellu si koo dajal ñu jéggal ko mooy meññ waajuram wu jigéen keroog ba geer ba amee ca Murtani danoo ñëw ni ko ah, Mbàkke day yëf ya de ña ngay jàpp sénégalais mu ne dara du fa xew sama sët nga fa Abdou Aziz moom mii la doon wax sëñ Abdou Khadir bëgg ko bëgg koo xam ne fu mu ko mas a gis muñ teg ko ci wetam moom Cheikh Abdou Aziz mii Cheikh Mouhamadul Amin Baara mi meññ waajuram muy sëñ Xaadim Awa Ba mooy caatum sëñ Baara xam nga li tax ma wax la léegi sëñ Mourtala mooy caatum sëñ Tubaa te moom la sëriñ bi waxoon ni làkkamata bi bu sukurin warida yaa wa wasaxtali bi Mourtada caatum sëriñ bi mooy yoroon liggéeyub sëriñ bi di dem fépp sëñ Saaliwu am na ko mas a jóge ci moom muy Cheikh Fall ma dëkk Gabon daldi di ne ko ñu ne ko Mbàkke de am na koy siyaar ku dëkk Gabon mu ne nañ bàyyi ki jógee Gabon mu ñëw bi mu dugg see bëgg toog nee na sëñ Saliou ni ma sàllaw yegg suuf gi matu ko taxawal rek ma lay xool Cheikh Fall nee na ma taxaw sëñ Saliou di ma xool naan ma cey gabon cey gabon ba jël kaala gi taf ci bët yi fatu nee na keroog ba nii sëñ Saliou waxut ak man nee na bi mu génnee dani sàllaw day Mourtala may Mourtala mii day li li ñu bëggoon ñun ñëpp fu sëriñ bi dem ñu teg fa sunu tànk waaye Mourtala dana ko mottali kon sëriñ Xaadim Awa Ba bu nekkaatee caatam Cheikh Mouhamadul Amin ab sëtam itam yoraat liggéey bu boo xam ne danañ ko méngaleeg ba Serigne Mourtala yoroon muy France ak Italie ak Angleterre fu mu mën a doon fu mu fa dem la muy digle mooy sampi daara jaamu yàlla liggéey la waxtaanu Paris wala ma ci gën a neex nee na na ngeen fexe ba ñu ngeen di liggéeyandool sax bu leen di fexe di sàcc seeni heure yoo xam ne da nga fay nekk te doo ko liggéey ndax loolu boobaa ribaa lay doon te loolu ñu bari dañ cee war a bàyyi xel ndax buñ ñu sëñ Aziz daa woote rek ñu ñëw bu waxtaanee ñu ñibbi kenn ku nekk war ngaa mën a jël leçon ba boo ñibbee. wallahi wa rabbul kaabati ba ma ñibbee man dama caa jàngat lu bari ndax léeg-léeg nga ne di ditaa liggéey bi du bari ngay tambaambaloo wala ngay pause ka nangam heure yu bari ngir bëgg am huit heures de te nee na loolu bokk na ci li nga xam ni sunu borom da koy bañ kon discours dafa am solo ba ca des Cheikh Mouhamadul Amin mii maamam soxna amintaloo mi ko meññi keroog ba ko suñ tubaa di tàggee borom daaru billaahi dane ko Ceerno soxna amintaloo sunu xarit ba maag moom moo noppalu soxna mintaloo moomu weñ moom meññ Cheikh Mamadou Moustapha meññ Cheikh Mamadou Amine Cheikh Mamadou Amine barki démb bu la woon màggalam ci Mbàkke Kajoor moom nii mu mel ci rakkam yii ci ginnaaw noonu la sëriñ Baara meloon ci rakkam yi mbokkal bokkal borom Touba sëñ du borom dër bi sëñ Baara da daa wax di moom day waa kër ndeyam dañu fee néewut dañu koo sori lool moo tax mu amoon ak moom ñeewante ba sëñ Abdou Aziz Baara mu tudde ko sëñ Abdou borom dër bi sëñ Abdou Kumba Suuna mii mujj nelaw it mu tuddee waat ko borom dër bi waaye bëggoon borom Touba itam ba tax mu daa wax ni maanaam mbooleem réew yëpp Cheikh dul Amine nee na ñi ngi nuy ñee réew moo mën a dégg nag moo yaakaar ni waxuma ko ca laa tàmbalee nee na ñi ngi ñuy ñee ngir tuubaa gii nu am borom Touba te keneen amu ko ah waaye mu ñaanaat wax ni nag yow yàlla maa ngi lay ñaan sama njaboot moo tax billahi bi ma biñ ni ma kii rakkama kii ma ñu toog ci ginnaawam nii sama yaram dafa daw ndax sëñ baara moo ne woon wajjaan la yaay lii kamis li nam la defal ma sama waa kër ñu mel na xorondom fi ne am yeew sax balaa dem fenn di ko defum lëm dana saytu ba xam xorondom néew faam déet ndax maanaam tuuti ga ñu tuuti taxut de booloo ga ñu booloo rek a tax te xam na ni mbooloo mooy doole moo tax mbàkke yàlla taxawaay bi yàgg buñ ju jógee Milan ba fii yàlla xam na ni dara yëkkatiwuñu waaye jëmam ji rek a tax te nee naa ko am na nañu yéene fu nuy liggéey la sëriñ bi ndax ñu itam am nañ tawféexi nag ba Serigne Saliou ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Sëñ Tuubaa defoon ca mag ña sunu waajur jàpp ci sunu loxo ba ci Serigne Saliou kon ku dañ ci agrier laa te duma topp nit ci saayir waaye bu ma gisee la Serigne Saliou daa digal ña bàyyi ko ci moom ma gis ñuy doxe noonee Cheikh Abdoul Aziz mii wëlbatiku bég di dox doxiinu koo xam ne ku ko gis xam ni kii sëtub Serigne bee li Sëñ Alaaji wax léegi ku ñëw ci yéen mel melokaan wu Serigne ba mel ngeen jàppee ko Serigne bi waaye bu melee neneen ngeen jàppee ko melokaan woon wo woowee mu mel te sëriñ Saliou da daa wax ni sëriñ tubaa dey bu ngeen déggee ñuy waxtaanee bàyyi si Ibra na ngeen ne teg mu mel ci yéen sëriñ Serigne Touba la ñuy waxtaanee te la ko ko may mooy topp ga mu topp sëriñ bi ba yemalewu kook dara kon nag Mbàkke yal yàgg yal na yàlla yàggal taxawaay bi dëgg nag ku ko dégg xam ni dëgg la ndax bukki daa dajee gaynde ci àll bi gaynde ni ko boo ma waxee ñetti dëgg ma bàyyi la nga dem ñetti dëgg. bukki ni ko kon de di nga ma bàyyi ma dem mu ne ko bismillah mu ne ko bu ma bi ci njëkk mooy bu ma leeroon ni bu ma jaaree ci mbedd mi fekk la fi du ma fi jaar gaynde ni ko waa loolu de dëgg la moom mu ne ko ñaareelu dëgg bi mooy bu ma jaaree fii ba jàll ku ma génn ne daje na ma gaynde te jëfandikoo ma du ko gëm mu ne ko waa loolu yi de dëgg la ñetteel bi mu ne ko nijaay gaynde da ngaa xiiful rek moo waral coow li waaye boo xiifoon lii lépp duñ ci fekk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Aziz sama may sunu mbër baare sang baay Madu Lamin Madu Lamin baare sëñ Aziz sama may sunu mbër baare sang baay Madu Lamin Madu Lamin baare